bismillahi irrahmaani yi ñu ñëwaat suñ suñu jotaayu tafsirul quraanil karim yi ñuy ànd ak ci biir koor gi tey nekk suñ fukkeelu jotaay ak ñaar ñu war a firi tey saar wi tudd albayina sooratul bayina te mooy saar wi tàmbalee lam yakun alladina kafaru min ahlil kitaabi saar la xam ne yàlla da ko tàmbalee ak di ñu xibaar mbirum eh, ahlul kitaab te ahlul kitaab mooy yahud yi ak nasraan yi maanaam juif yi ak eh, chrétiens yi ak itam mbirum bokkalekat yàlla yi muy yéefari yàlla ne lam yakun alladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina munfakkiina xatta taatiyahumul bayina ñi nga xam ne day dañoo wedd ñi nga xam ne dañoo weddi ci waa ahlul kitaab te mooy yahud ak nasaraan ak ñi bokkaalekati ñi bokkaale yàlla bokkaalekati yàlla yi ñoom day weddi wuñ yàlla tàqalikook euh, njub gi lu dul ba leen ak njub ñëwalee mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fii moo yonante bi sallallahu alayhi wa yàlla nee ñi nga xam ne muy ahlu kitaab te mooy yahud ak nasaraan yi ak bokkaalekate yàlla yi ñoom day weddiwuñ yàlla lu dul ba leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwalee booba lañ tàqalikoo ak njub booba lañ tàqalikoo ak jaar ci yoonu yàlla al bayina mooy yonente bi sallallahu alayhi moo tax mu teg ci rasulun min allahi yonente bu jóge ca yàlla boo xam ne ba mu ñëwee yatlu suhufan mutahhara da doon jàng ay téere yu laab ay wax yu sell muy alquranul karim téere yoo xam ne fiiha nekk na ca biir téere yooyee kutubun qayima ay aaya ak ay saar yu jub xocc yoo xam ne am benn sikk sàkk lenn lu lënt lenn lu lënt amu ci laa rayba fii alif laam mim zaalikal kitaab laa rayba fii amul benn sikk sàkk bu am ci alquran yooyu amul benn sikk sàkk bu am ci aaya yooyu walla ci saar yooyu waaye wama tafarraqa alladina utul kitaaba illa min baadi ma jaathumul bayina ñee na ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab te mooy ñu yàlla wàccoon ci ñoom ay téere mu yahudi ak nasaraan yi ñoom day taqalikoowuñ wuute wuñ ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam weddiwuñ lislaam lu dul gannaaw bi nga xam ne ak njub gu leer nañ ñëw na leen mu yonte bi sallallahu alayhi wa booba nag lañ fetteelu nag booba lañ wuute ñoom ndax ñoom daanañ séentu ni am na kat yonent bu woy bu war a feeñ te bu feeñee danañ ko topp waaye ba mu feeñee feeñ ci weneen xeet bu bokkut seenu xeet ñoom ñëpp ñu ko ginnaaw mooy ko nga ne kon ñoom jekkoon nañ pare woon nañ pour topp yonent bi sallallahu bi ñu déggee mi waaj a feeñ waaye ba mu feeñee nag feeñ ci weneen xeet bu seen xeet ci lañ ko wan ginnaaw moo tax yàlla ne ñoom day taqalikoo wuñu wuuteeg moom weddi ko mooy yàlla lu dul ginnaaw ba nga xamee ne lu leer naññ ñëwal na leen ci ne kii la yàlla yónni albayina ba léegi mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla na moo ne day ñoom lañ def bokkul ak lañ waroon a def mooy googu ñu mooy yàlla wuute ak yonente bi weddi yàlla sànn seen téere yàlla wàccoon ñoom fële loolu day bokkul ak lañ waroon def ndax ñoom wama umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diin ñoom digaluñ leen lenn wa maa mooy digaluñ leen lenn illa li yaabudullaha lu dul ñuy jaamu yàlla kese ba noppi itam muxlisiina lahu laxu diin di ko sellal di ko sellal ndax yàlla moom moom mooy boroom diine ji moom mooy fayekat bi di ko sellal ba noppi itam xunafaa xunafaa moo ñu bàyyi mboolem diine diine yi nga xam ne ay diine yu wérul la diine caaxaan la dem ci diina jooju nga xam ne mooy diina ju wér ji mooy lislaam mooy diina ju dëggu jooju diina jooju nga xam ne moom mooy diina ju wér ji wa yuqimu solaata ba noppi ñu boole te di julli wa yutu zakaata di génne azak wa zalika loolu ma lim mooy gëm yàlla di ko jaamu te di ko sellal di julli te joxe azak wa zalika loolu diinul qayima mooy diina ju jub ji mooy diina ju baax ji mooy diina ju baax ji inna alladina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla min ahlil kitaabi bokk ci ñi ma wàcce woon ci ñoom ay téere muy yahudi ak nasaraan yi wal mushrikiin ak ñi bokkaale yàlla mu yéefari ñoom ñépp seenu fay mooy fii naari jahannama sawara la ñuy dëkk te bu ñu fa duggee dañ fa génn mukk xaalidiina fiihaa dañ fay sax ba faw xaalidiina dañ fay sax fiihaa ci biir sawara woowee ulaayika ñooñu ma lim mooy yahud yi ak nasaraan yi ak yéefar yi hum ñoom charrul bariya ñooy ñi yées ci bindeef yi yàlla bind ñooy ñi yées ci mbindeef yi yàlla bind buñ seetlu aaya yi danañ gis ne yàlla bi muy e, wax dafa njëkk a tudd ahlul kitaab doog a tudd bokkaalekat yàlla yi li tax mu njëkk a tudd ahlul kitaab mooy ndax ñoom seeni wet di moo yées moo gën a bon ndax ñoom yàlla dafa wàcce ci ñoom ay téere bu dee yahuud yi mu yónni woon ci ñoom sayidina Moussa alayhi salaam bu dee nasaraan yi mu yónni woon ci ñoom sayidina Isa alayhi salaam ñee mu wàcce ci ñoom téereb tudd tawraat ñii mu wàcce ci ñoom téereb tudd injiil yàlla wax ci li bëgg lépp leeral ci lisaan ju leen naññ seen téere yooyu itam ñu waxoon ci ne am na yonent buy feeñ kat boo xam ne turam mooy Ahmad ñu jàng ko ba xam ko waaye nag ba yonent bi sallallahu feeñee ñu sànni lañ jàngoon ci téere yi fële bañ koo topp bañ koo gëm. kon ñoom seen wedd yàlla moo gën a yées ndax dañoo xam ba noppi teg ci seen tànk loolu moo tax ñoom ñoo yées fuuf mushrikuun yi mooy bokkaalekat yàlla yi loolu moo tax yàlla bi muy nettali seen mbir mu njëkk leen tudd mu njëkk leen tudd wax gu mu wax ne kon ahlul kitaab dafa bëgg a wane rek nañ ñoom ñu sàggan lañ ndax ñoom kat seen wedd gi ñu weddi moom ñàkk xam waralu ko ndax yàlla wàcce nañ ci ñoom ay téere yéen ci ñoom ay ndaw kon bu ñu weddee lañ wedde moom lañ ko wedde ngir seen bànneex rek ak xol boo xam ne xol bu tilim la waaye wedduñ ko ngir ñàkk xam kon moo tax mu njëkk leen tudd ngay wane seen càggante ak itam seen yéene ju seen yéene ju bon yàlla wax na ci alxuraan kay naan fa lamma jaahum maa arifu maa arafu kafaru bihi fa laanatullahi ala alkaafiriin ñoom ahlu kitaab ñooñu ba ñu demee ba lañ xamoon jàngal ko ci seen téere ya feeñ ci ñoom dañ koo weddi waaw xamoon nañ ne am na ku yàlla yónni ku tudd Muhammad koo xam ne day nekk ab yonant mooy ñëw ginnaaw Isa ñu jàng ko xamoon ko waaye ba mu feeñee nag kafaru bi yi dañ koo weddi loolu kon loolu moo tax yàlla njëkk leen tudd euh, mu teg ci euh, innal lazina amanu ginnaaw bi mu waxee mbirum yéefar yi ak bokkaalikat yàlla yi ak ahlu kitaab ñi nga xam ne ñoom mooy yàlla ba noppi ne seen dëkkuwaay mooy sawara ndax ñoo yées ci mbindeef yi mu wax nag ñi nga xam ne ñoo gëm yonent bi sallallahu alayhi te topp ko la ladina amanu ñi nga xam ne gëm nañ wa amilu salihaati jëf ju baax ulaika hum xayrul bariya ñooñu ñooy ñi gën ci mbindeef yi ñooy ñi gën ci li yàlla bind ñu baax ñi ñooñu ñooñu ñooñu baax ñi jazaahum seenuk fay inda rabbihim dajeeg seen boroom mooy jannaatu adnin ay ajjana yu foor yoo xam ne tajri min tahtiha al anhaaru ajjana yooyu ci suufam ay dex dañ cay daw ajjana yu neex yu xéewale yoo xam ne yàlla dafa def ay dex yuy daw ci suufu ajjana yooyu tajri min tahtiha al anhaaru te buñ fa duggee itam duñ fa génne te mukk xaalidina fiiha abadan dañ fay sax ba faw xaalidina fiiha abadan dañ fay sax ba faw ci ajjana yooyu di bànneex gu dégg bëccëg te du jeex mukk ndax ñoom ñoo ñeekat radiallahu anhum yàlla nangu na seen i jëf yàlla kontaan na ci ñoom yàlla gërëm na leen ñoom itam wa radu anhum ñoom itam ñu kontaan ci li leen yàlla fay bëgg ci li leen yàlla fay daal gërëm yàlla ñoom itam daalika fay yooyu ma wax nag ak may yooyu ak xéewal yooyu nag liman xashiya rabbahu ki koy am mooy ki ragaloon boroomam ki am mooy ki nga xam ne moom moo ragaloon boroomam kon daalika may yooyu ma lim ak àjjana yooyu ak ngërëmul yàlla loolu nga xam ne ay jaam nañ ko am ëllëg yawmal qiyaam liman xashiya rabba mooy ñi koy am mooy ñi ragal seen borom subhanahu wa taala waxoon na ci beneen aaya ne wa ama man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa ñi nga xam dañoo ragal seen boroom di moytandiku ay tereem di jëf ay ndigalam ba nopp xeexal seen bakkan eh, xeexal seen bànneex ñooñu ñooy dëkk àjjana bu ëllëgee kon saar wi lii lay tekki ci ab tënk bu gàtt salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu